trois fi mu nekk ci àlaxira yàlla na ko yàlla xaaree aljana di ñu wax aussi bépp mbindeef mu fa fekk yàlla na ko suñu borom. xaaree aljana di masaw aussi ñëpp ñi nga xamante ni sonal nañ leen fii biir Grand fi làmb ji boobu ba léegi booy di baare koñ bi di def man la su maay ndaka noonu loo xamante ni man yëguma ko sax parce que am na loo xamante ni tamit ay nit buñ la bëggee foog ñu ñu ñooy moom loolu da nga leen koy bàyyee di sant aussi tamit borom daaru bu baax a baax su ñaanal nañu xam taxaw nañu bu baax a baax di sant ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci làmb ji surtout boole jong Zal Touré Papis Général xam nga dafa nekk lii ñii dañ nekk loo xam ne dañoo yàgg ci man man ak ñoom dañu yàgg donc maa ngi sant ñëpp di sant tambour major bi aussi bi nga xamante ni Samba Suuna moo ko jiite di sant président fans club bi Baye gile xam nga bàyyiwuñu kenn daal di kontaan aussi ci drapeau bi drapeau Matar Ba bi xam nga moom moom miin naa ko sama noos la mais ñu ngi koy xaar nag waaye ñu ngi koy xaar. ah delloo fa sa loxo jeexaat bul sonn ba bu la jéeri men fadumaare suñu oto bi bu ko fàtte nag dañ ñëwaale booy ñëw <laughs> del xool <laughs> ayca nay xool ma delluwaat tur ci ginnaaw rek Zarko jël xale boo xamante ne nii dafa saf sàpp ci làmb xale boo xamante ne nii dafa bëri coow ku ko jël du ma ne say mbokk duñ nelaw waaye dañ ko bàyyi xel bu baax nga jël ko waaye nga am 100 pour cent assurance gëm na yow da ngay daan xale boobu noonu gëm-gëm bi doole nga ko tegoon wala dafa nuñ la dee. non hmm, yow ah dañuy umpale dañuy xaw ma dañuy umpale xaw ma dañuy fàtte man ki ma nekkoon lieutenant am hmm, mooy actuel roi des arènes te Modou Lo man maa nekkoon lieutenant am nit buy dem ci ku ko soxla da ngay jaar ci man kon lieutenant Modou Lo mënul tële bëre si te maanaam boog aada mooy li ma ko wax rek xamuma ma te loolu laa ko la man maa gën a salte bëri ci àddina ci àddina maa gën a salte bëri man mun naa daan ku nekk ci làmb ku nekk kese mais buñ taxawee nii rek bëri non du du loolu de cest à période boobu làmb moo ma bëggoon mais man bëggumoon làmb man dama jàppe woon làmb benn foo parce que maa ngi seetaan jamono jële benn benn gaan muy def benn benn émission xaw ma si ñoom buzz la xaw ma si ñan mu ne leen gis ngeen Zarko bi nga xamante ni dem na Europe ak bii nii ñëwaat sarko bi bàyyi woon ba dem moo gënoon yomb daan ka Zarko bii nii léegi non parce que bii nii léegi dafa xam làmb xam li ko làmb mën a may xam fi mu ko mën a yóbbu moo tax mënu ko caaxaane làmb li ko jaraloon bu njëkk ba ak ko jaral léegi bokkul li ko jaral léegi moo ëpp dafa xam nekk ci moo tax mu jaral ko. fuuf daf ma jaral daf ma jaral loolu moo tax léegi actuellement la ma gën a jaral. si parce que xam naa loolu parce que dama bàyyi Europe ñëw fii ah pour fayeeku ñëw mu fii pour tourner autour du pot dama ñëw pour jël li ma moom pas ñow di di di nekk seconde wala wala troisième non non. ma ñëw ci làmb ji Zarko jël Senghor tekki ko ta sànni ko ci diggante tànk Zarko donc tànk Ada Fass autant pour moi laaj naa ko ko. laaj laaj naa ko ko mu naa ma làmb la woon làmb comme moom lépp làmb la. ki defa ngi nii ka moom laa fi de xaw ma ku ko moom si biir géew bi laa ko jël ko tax ko mu may gêné moo dindi ko sànni ko si yàlla yi moom moo ko de. <coughs> yoo xam moom sengoor yi ma takk sax arafa sax moom. naa loolu foo jëlee sengoor yi. <laughs> mooy suñu cooli moom fa laa ko jëlee woon mun a yàq der. ah da nga sàccoon saagam. ñoom ñu sàcc sama mbaxane. jël sama mbaxane ma jël seen saag. ah ni mu def ba jël sama mbaxane xanaa. man ma këf saag bi <laughs> loolu la rek këfante la. Senghor yi xamoo Senghor la lay faj nga jël takk sa ndig garaawul Senghor la rek lu baax moom ko ko gis danga koy xam man ma gisee Senghor bu baax dama koy xam nag. <laughs> <laughs> Ada Fass ni jàpp ñàmbur nga takk Senghoram yow boo bu Ada Fass takkoo sa ngeem du yegg. du ko génnee sax ci stade bi dama koy jël. <laughs> non non mais duma def violence mais dinaa dinaa fexe def le tout ba jël ko. si ba téyewaat ko sama loxo loolu moom dinaa ko def. lan naa ko Arafaas dinaa la ko laajaat yéen ñaar am ngeen écart d'âge bu bari bu ñu xool Arafaas sax raq raq raqaat la mais da ngeen a bëre mu am tension boo xam te da mel ni comme ay morom foo mu tàng jër lan la seen diggante. mais c'est parce que dañu bëggoon jaay suñu làmb loolu kese la politique la pour jaay suñu làmb rek loolu tamit ma ko ciy félicité bu baax parce que moom il bien joué son rôle si man su ma jëlee avance nit bañu ma nga wax ma lu la ah. non anyway parce que man maa signé sa contrat nga saaga ma nga xas ma defal la neex garaawul coor ji mais man xam naa ne du ma la dépassé du ma la saaga du la wax loo xamante ni lu dul làmb. muy hmm. bëri xale bu saf sàpp bëgg réseaux sociaux yi di génn ci tali yeeg mbedd yeeg stade yëpp sëmmee ko wane wu fëgg dënam tiitu woon instant boobu. wallaahi Azim loolu nga gis su ma la wanee video bi ñu ma wan bi ñu ma yónnee léegi ak li ma wax waa ji non man dafa du ma ko teg sax si télé bi xool liñ ñu ma yónnee léegi. gis nga ay bi. te man lañ ma ko yónnee ah. ma nit moo ma ko yónnee xoolal li ma ko tontu man déglul. man ñaawlu quoi man dama ñaawlu video bi ñu ko def ba ba dugal ko am na loo xamante ni gis nga Sénégal nañu bàyyi yàqante suñu biir baaxul vidéo jàmbur yi ngeen di jël di ko dugal di weerante amul njëriñ amul njëriñ amul amul sens parce que da ngeen di xalaat ni kii xale la dafa nekk ci yoon yaa ngi comprendre ngeen jël ay vidéo am di ko tas di yàq deram ba njëriñ la am amul lu leen njëriñ man copain ma yónnee vidéo bi dama ko woon ko bu supprimer yii man yi bu ma ko yónnee man yii doxuma ci quoi ay yàq deru nit wala ay tuuteel nit man loolu ba sama cër yaa ngi comprendre man bëre la ñu seex bëre nañu après bu jeexee jeex na mais pas jël ay vidéo jàmbur di ko génnee non non daan Ada Fass yàqalul Ada dara bàyyi leen booy bi mu dellu si waat ñëw defaraat carrière am defaraat yoonam parce que dafa nekk ci yoon bu leen ko yàqal wax bi yëpp loolu la quoi. ci Zarko fi muy wax rek foofu laa yëkkatee gis nga làmb làmb la autre chose autre na yoo xam ne vie privée Ada Fass la yoonu nekku ci sama yoon nekku ci yoonu keneen nekku ndax fii ku fi nekk am nga loo xamante ni yaa ngi koy def te bëggoo kenn yëg ko les gens arrêtons ça quoi bi amul njëriñ ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo mayante xaalis làmb ji jeex na jeex na fi may duggee yow làmb ji est-ce que xam nga li waxuma la victoire bi de mais làmb ji rek est-ce que xam au niveau national international. non man xam naa ko mais promoteur bi xam na ko mais promoteur bi xaalis bi ñu dagg yëpp moo ko war a fay ndax ñun dañ koo fay ba wis ko. dagg bi ñëwaguma ci nañ dugg nañ dugg wax moo tax. no mais tamit nag man naa la xamal de wuyu ma papi général doo ko yoot mi ngi toj sama néeg bi li ngi fay fecc lu doy waar. billaay wallaay. Papis yàq suñu émission ci lu doy waar fii laa toll dégg tànk yi. billaay wallaay. au niveau national international foo toll Zarko Zarko da nga ñëwaat en force. non yow man déggoo lum la man dépp bi may ñëw ne woon naan bu ma ñëwee dama yow yow ci sa bopp sax wax naa la ko au téléphone ne man bu ma ñëwee damay téewaat làmb ji. dafa leer parce que mm, maanaam dama ko xam làmb dama ko tarbiyu comprendre nga dama dama jàgg bëri te dama doon bëri ñoo xam ne ñoo ma mag téeméeri junni yoon jiituma ci làmb gën ma xam làmb ma nekk ci di bëri ñoom ñu may daan tey ma leen di daan suba donc eh, maanaam boog dama dama dama ci jàng quoi ba pare ci donc bi ma demee Europe nag liggéey ci liggéey lu bëri xam nga di jàng li ma manqué woon donc retour loolu moo tax retour bi am doole te bi ñu ñëwee aussi preuve yi ñu def loolu moo tax parce que man même bi ma nekkee Europe en Europe loolu moo tax nag européens yi gën ma suivre bi ma fa nekkee dama doon suivre MMA maa mais amateur quoi maa ngi doon def foofu MMA amateur loolu moo tax nag ak ñooñu gis ma xam nga ñu gën ma gën ma suivre ci loolu moo tax làmb ji boo déggee ma la Pape Dou Fall lekk na ci làmb ji donc maanaam moo pay pour view moom waxu ci dara pay pour view rek ja <laughs> tëj na làmb ji waxuma la mobilisation ni la waa Grand Yoff wuyoo may la doole indi la benn Zarko loolu ba nga duggee ci stade bi lu mu la def. non mais lu <clears throat> waa Grand ba tey génnuñ de no ba tey génnuñu ba tey waa Grand génnuñu waa zone 7B bu ñu génnee mbër bu may mun di bëreel stade doo say supporter du ñu dugg dama koy feesal ba muy tuuru billaay wallaay te bu ma amaatee combat nii nii nii nga koy xam. mu nekk sa kanam ndax instant bi mbër yëpp mbër mbër yëpp koo ci tudd rek mu ne la Zarko laa bëgg moo nekk sa kanam. waaw xam nga ñoom seen seen bëgg-bëgg la ñuy wax am nañ ci droit mais man moom lenn rek laay wax Gris Bordeaux ama seen ñoom ñaar kese parce que ñoom ñaar ñëpp dañ doon conseillé booy bi ñi ngi woon foofu donc na ñëw bëre ak man ñoom ñaar. ndox de ndox de du du du jéggi pax xanaa giri dëng fi balaa nga bëre giri boo doo bëre giri dë. bëreeg Maodo du ma moom Maodo toog nañ plateau ma ne ko yow moom boo desoon si mbër kese ma bàyyi bëre. parce que dafa dafa dafa nekk koo xamante ni dama ko estimer comprendre nga dama ko estimer ci ci diineem ci éducation am ci ci ci ci léppam loolu moo tax xam nga. Eh, sama xol may ma may bëreeg moom quoi wax dëgg yàlla. si nga bëgg bëre lu ja nekk seen diggante wala parce que ñu ngi naan Zarko mu ngi ko doon ñaawal affaire yu genre lan la. non di lu parce que yow imagineel man may bëre nga nekk ci ginnaaw naan mbër bi na ma dóor rek mbër bi na def nii. jàppale la mais kon donc jàppale bi gën a yomb kay na jël na jël avance bi ñëw ñëw ñu bëre ko mu wan booy bi nan la. kenn woowal na la avance Gris Bordeaux ñu ngi ñu may bëgg a rey kay. ñu ngi may bëgg a rey d'ailleurs. cachet bi wala moo ko moo yéegal boppam. fu mu ne nii bëggul ba. kase kase bi mooy yéegal boppam mais du maa ko parce que cachet moom pour mu yéeg il il te faut des preuves te def nañ preuve yi donc ku bëgg Zarko yow xam nga fi ngay jaar sama ménagère mu ngi fi boobu ngay woo rek après ngeen waxtaan. li duuf ci nag bi yëpp xejul ci bi cin bi Zarko sanction bi sanctionné nañ ko un million trois cent su ma jumul aj ko un an lan la. yàqu naa un million soxor nanu Hmm? ah mais sant yàlla nag ah. <coughs> que man moom wax dëgg yàlla hmm? sant yàlla rek quoi loolu moom wax dëgg yàlla fii ak toogaguma ak sama ménagère mënu ma si mënu ma si développer loo xamante ni lu rëy lay doon. mais lu leer la parce que waa CNG ci boppam ñoo génn wax ko ci seen gémmiñu bopp léegi yow lan ngay wax waa CNG. non mais man du ma leen wax dara waa CNG parce que xam naa ni tôt ou tard dinañ ma convoqué dinañ toog. ñoom après dinañ ma wax lan moo tax ñu aj ma un an ak lan laa def parce que. plus de 30 minutes ku ko defati dañ lay aj. plus de 30 minutes loolu munoo si aj munoo si aj mbër munoo si aj mbër munoo si aj boxeur munoo si aj aj kenn kenn munoo ko si aj billaay. Zarko lan lan lan lan ngay wax ak lu làmb lan ngay wax ñu lay suivre waaw ñi may ñi may ñi may ñi may suivre rek ñi bëgg yëpp di leen di di leen di leen masaw di sàkku si ñoom ñaan leen wax nañ ñu gën a ñaanal di sant sama mbokk yëpp di sant xaal pulaar yi njaago yi bambara yi joolaa yi séeréer yi ñëpp bàyyiwuñu kenn rawatina nag euh, fukki penc yeeg ñaari ci ndakaaru sama mbokk lébu yi maa ngi leen di sant bu baax a baax dooxool booy na semba siya si na loole dafa leer kenn la doomu njaago du dof billaay ma njakko jiko fuur jamais de la vie billaay mi salminima noon jarama allah jarama min beltima no feewi ñëpp di sant jàmm gën fas gël tappe parcelle pikine géejawaay caaroy bàyyiwuñu kenn jëppal ak ñëpp bàyyiwuñu kenn Grand ndakaar 6 ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm unité 6 kon ñu Iber ah Iber ñu ngay sant di la gërëm waa dépôt gaz bi ñëpp bilaay walaay hmm. del xool bilaay ayca <laughs> Zarko la ñu kontaanee bu baax a baax ah Kalidou gis nga làmb nii la yaakaar naa ne làmb ji jeex na bu yàgg mais te ñëwaat na ay information yu bees tax ñëwaat na waaye di waxaat gaa yi rek nañ bàyyi yàqante bi bàyyi yàqalante bi te jàmm xam ne fii Sénégal te àdduna bi dafa jeex tàkk soo gisee ni àdduna bi doxe fi mu ne nii nga xam ne dara desatu fi ku ci def lu baax yàlla fay lu baax ku ci def lu bon di ko gis jàmm jàmm seen làmb ba beneen yoon.